kon nag yéen samay mbokk ñi ma bëgg te namm leen di sama mbég ak sama kaalaak ndam jàpp leen bu dëgër noonu ci boroom bi soppe yi ci lu jëm ci ewodi ak santis maa ngi leen di ñaan ñu bokk benn xalaat ci boroom bi te yow sama nawle bu wér nanga dimbali jigéen ñooñu xeexoon ci sama wet ci tas xabaar bu baax bi boole ci Clément ak sama yeneeni nawle ñoom ñi yàlla bind seeni tur ci téere dund ba dee leen bég ci borom bi maa ngi koy waxati bég leen na seen lewet leer ñépp borom bi jege na bu leen jaaxle ci dara waaye ci lépp wéetal leen yàlla diis ko seeni soxla ci ñaan gu ànd ak cant noonu jàmmu yàlla ji xel mënta takk dina aar seeni xol ak seeni xalaat ci darajey kirist yeesu léegi nag mbokk yi ne seen xalaat jublu ci lii lu dëggu lu jekk lu jub lu sell lu rafet ak lu faydawu su fi amee lu baax mbaa lu naw xalaat leen ko li ngeen jànge ci man te nangu ko li ngeen dégg ci man te gis ko jëfe leen ko kon yàllaay jàmm dina ànd ak yéen sama xol sedd na guy ci borom bi ci ni ngeen yeesale seen ndimbal ci man xam naa ni amoon ngeen yéene ji waaye man gi moo fi nekkul woon ba tey soxla taxul ma waxe nii ndaxte jàng naa doylu ci mbir mu ma mën a dab miin naa ñàkk man naa naataange ci fépp ak ci lépp yàlla def na ba sama xol toj ci suur ak xiif barele ak néewle mën naa lépp ci ndimbalu aji dooleel ji waaye teewul taxawu bi ngeen ma taxawu ci sama tiis jëf ju rafet la yéen waa Filip xam ngeen ne bi ngeen jëkkee xam xabaar bu baax bi te ma jóge diiwaanu Masedowen benn mbooloo àndul woon ak man ci mbirum joxlante ndimbal mu dul yéen dong ba ma nekkee dëkku Tesalonik sax yónnee ngeen ay yooni yoon ngir faj samay soxla loolu tekkiwul ne damay sàkku ay ndimbal ci yéen waaye dama bëgg rekk seen denc yokku fa yàlla fi mu ne jot naa li ma aajowoo lépp ba maa ngi ci naataange li ngeen ma yónnee ci loxooy Epafrodit doy na sëkk ni xetu laj la mel ci man di sarax su neex yàlla te mu nangu ko te yàlla sama boroom mi denc ci Kirist Yeesu xéewal yu dul jeex dina faj seeni soxla yépp na yàlla sunu baay yelloo ndam ba faw amiin nuyu leen ma gaayi kirist yeesu yu sell yépp mbokk yi ànd ak man ñu ngi leen di nuyu te it yi yàlla yu sell yépp ñu ngi leen di nuyu rawatina nag ñi nekk kër buur bi sesaar ne yiwu borom bi yeesu kirist ànd ak seen xel